toujours ce qu'il faut pour que li ñuy jënd mu méngoog li nga xamee ni moom la marché bi di joxe et c'est pourquoi fournisseur yi nekk Saint-Louis ma connaissent assez pour dire que ni maire bi moom da ngay waaru bu dee moom rek nga war a lijjantil affaire bi day metti parce que je pense que ni bu ñu la dénkee collectivité locale ce n'est pas pour toi et ce serait un peu bizarroïde même que benn nit bëgg a na euh, budget commune te loolu jàpp naa ni mënu ma am candidat à la présidentielle euh, de 2012 maire de Saint-Louis député à l'Assemblée nationale membre du M23 balaa ñu jóge ndar ngir wax ci li yitteel nit ñi dëkk muy Sénégal réewum Sénégal bi ngay laaj euh, baatu askan wi dañuy jeexale licence de pêche yi mbokku euh, waa ndar foofu la ñuy enchaîner suñu mbokk mool yi nekk ndar get ndar yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gët yi am problème seen digganteeg Mauritanie ana tey loo leen di wax concrètement loo xamante ni moo war tax ñu bàyyi fi ñëpp votel la defe naa ni d'abord man suma bàyyi juddoo Gendar suma maam suma maamaat ci ndey ak bàyyi ñëpp juddoo Gendar déjà doy na te may doomu Gendar nekk meeru Ndar di yootu di wut nekk président de la république wolof dafa ni ah suñ tubaa sax moo wax ni nit lu ko të na dem fa ñu tege woon laaxu ngénte mu wut ko foofu donc euh, pense que effectivement ak du point de vue émotionnel euh, les Saint-Louisiens ont mille et une raisons jàppale ma ndax xam nañu ni Cheikh Bamba Dièye de lu mu yokk ci àddina ndar yokk ànd ak moom ndax lan ndax je pense que aujourd'hui maa bokk ci maire yi Sénégal yi nga xame ni réaliser nañu ay performance yoo xamee ni chaque année au mi au moins un million d'euros de financement extérieur dina dugg ci bi ndar comme mën a bokk si si li euh, ma daanee rek ci benn affaire mooy que ni wolof nee na modd ngoog ku mën na def waaw waaw non mais très bien chiffre bari la Latif booba tey chiffres yi bari na mais concrètement xam nga la show électoral c'est également du concours dañu bëgg candidat yi bu ñëwee wax askan lu mën a tax ñu voter leen alors lan ngay def concrètement à propos des licences de pêche à propos des yi mool yi di jànkonteel seen diggante gàddu côte Mauritanie. waaw xam nga gis nga loolu day wane rek problème bi Sénégal am ci ñàkk leadership ndax bu fekkoonte ni nit ñuy dox ak tubaab yi. muy communauté économique européenne nga xamee ni union européenne du moins ñoom bu ñu soxloo napp ci suñuy géej yi dañuy ñëw signé ñun ay contrat de pêche li lay wan ni nit ñi amuñu ittee sax ci Sénégalais bi yëguñu ni sax que ni kii travailleur la ndax kër mool boo gis bu amee fii la wala mu am gaal goo xamee la tournée moo la gaal mag yoogu waaw waaw yow gaa mënuloo comprendre loolu mais ñoom ñi may déglu xam nañ li muy demee wala mu am gaal guy dem di géti teer sax mm. moom xam na entreprise au sens propre comme au sens figuré la am ndax dina am lu mu bon bon ñaar fukk ba ñeent fukki nit yu ciy liggéey plus de soixante-dix personnes de manière direct yu ci dépendre te jàpp naa ni benn waaye gii nekk Ndakaaru ku mel na yow di ko simo ah, karawaatu waaw defal naa ko bàyyi ma yeggale xam na may fi laa tourné ah, na yow waaw di ko simo karawaatu yore benn société te juróomi nit yu wóor du fa liggéey hmm. tey ku mel na kooku bu jógee làmb banque bi ñu wuyu ko gestu ko te ñun ñi nga xamee ni ni ñuy dundal ci ay doomu aadama ci liggéey ak li ñuy contribuer ci économie nationale mënuñoo am sago ak yëg gi ci war ndax tey jii yaakaaroon ni tey man Cheikh Bamba Dièye président de la République damay dem wax ak damay dem wax ak immédiatement et de manière concrète damay wax ak gouvernement mauritanien ak suma homologue ba fa nekk ni ko nag wax ma ñaata lay fay par at pour sumay mool yi napp ci condition yi nga xamee ni yow moom nga ko bëggee ñu négocier comme ni ñuy négocier en affaire bu ñu négocier ba mu wax ma ñaata milliards la ma daal di seet ndëgam loolu lu mën a nekk la ci ñun wala déet ñu négocier ba mu wóor ni ma ne intérêt mi ngi ci te sumay intéret mi ngi ci mooy intérêt mool yi bu ko defee ñu ñëw ci biir bërëbu nappukaay yi képp koo xamee ni bëgg nga dem nappi ca condition yooyu da ngay daal di fay bu ko defee si dem nappi ca barab boobu pour dellu siwaat ndax hmm. damaa gisul lu war a tax ab pêcheur espagnol mën a dem ci biir génn Sénégal napp génn dem yoonam mën a dem ci géeju Mauritanie napp génn yoonam te sénégalais bi bu jógee Guet Ndar jàll ab naar boo xamee ne xamul nu mu demee taxaw ak fetalam ni ko ko tell bu ëllëgee musiba dal ko te Sénégal capableul sax laa la wax défendre ay kotom teg ay force de sécurité yu mat yoo xamee ne xanaa nag dëgg dëgg dëgg ñun ñi nga xamee ñoo moom suñu réew mënuñoo accepter wo c'est pas acceptable te loolu bokkul ci relation internationale gis nga démission mm. démission mooy la base de toute forme de sous-développement ndax tey jii bu ñu demoon ñun ñu am garde-côte yu matale taxaw foofu benn naar mënatul jóge ca biir gerte ca biir eau territorialu Mauritanie taw ba ñëw biir chaumière di dàq ab sénégalais c'est pas acceptable c'est voilà. pas possible mm. te warul mën a nekk voilà très bien donc Cheikh njiitu FSDBJ euh, yaakaar naa ne may may mbokki libu may mbokki mool yëpp dégg nañu ñu ngi laa xaar Latir euh, ñu aborder donc euh, actualité bi ak waa waa M23 ku nekk xam na ni Cheikh si kuréelu googu la bokk. waaw si si wàll woowu il faut ñu laaj ko parce que yéen dafa mel ni M23 xamu leen yéen waa M23 xamu leen foo leen jëm campagne yu leen bàyyiwu leen foo leen tool wax ñu concrètement foo leen tool ci mbir moom. ah defe naa ni day ci Sénégal gii. mën nañu wax lépp ba mu des ay dof la ñu ñun leaderu M23 yi mën nañu wax lépp ba mu des ni ay dof la mën nañu wax lépp ba mu des wax ni xamuñu lu ñu bëgg ndax bul fàtte ni gars yi dañoo xëy suba nii pour paasu élection présidentielle soixante cinq millions la te si réew mu naqari bu mel nii yaakaar nga ni rek la tiir mukkal la mel na man dina ànd ak ay sénégalais ñu yaakaar ka jàppale ko ñu dajale ba mu mat 65 millions ñu dugal ko fenn ba pare di mel na ñu xamul fu ñu jëm au contraire xam fu ñu jëm moo tax ñu jël position ak disposition yi lan moo xew yéen Sénégal lan moo tax nit di dem ci élection présidentielle yaakaarul leen ni moo di xeex ndóol xeex ñàkk indi développement mais loolu bala nga naan naam ne fa dafa war a taxaw ci condition yi nga xamee ne moom la ñuy demee ci combat boobu ñu daal di koy teg ci yoon waaye nan nga bëgg di demee ci benn làmb joo xamee ni benn mu mel na ni euh, Luc Nicolaï wala Gaston dafa daal di tëgg làmbam entre ñaari mbër ni Yékini ak Balla yi dañuy bëri ñoom ñaar mu signanteeg ñoom contrat fay caution ku nekk ñu jox la sa avance bis ba jot ñu dem stade de l'amitié wala stade Demba ñaari mbër yi futteeku fas ne taxaw ba nga xamee ne arbitre bi ni për benn waaye doge ca làng ga ngemb ngemb boppam ñëw taxaw ci biir dugg làmb ji ni la wala ñu layee ni cëpp ni par force da koy bëre non attends attends tuuti déglu eh, eh, Abla Abla Abla Wade nekk fi ndëkk Abla Abla Wade nekk fi bàyyi leen Ablaye Wade bàyyi leen Ablaye Wade rek bàyyi leen bàyyi leen Ablaye Wade Ablaye Ablaye Wade nekk fi Xalifa Ablaye Wade dana ñëw fi toog wax ak askan wi Xalifa ñu ñu ñu wax ko tuuti nag xam li nga wax benn waaye taggee ci làng ji ñëw taxaw mais bu arbitre bi ne waa ji mën na bëri ah lu ci des. dinaa am tontu nag bu gaaw a gaaw a gaaw ndax kat arbitre laa defe ni amul coloration amul parando amul candidat laa defe ni bu fekkee arbitre dëgg dëgg la ñu am ñun Sénégal yépp xam na ni ki nga xamee ni bis dafa xëy mu dem sa assemblée nationale jël téeméer ak juróom fukki député yeew leen ci benn mbir fas yéene loo leen woote loo loo xamee ne bu jàllee mooy Sénégal jeex na démocratie amatul développement amatul ndax àq bi nga xamee ne moom la sénégalais bu nekk war am bu fekkonte ni loi Ablaye Wade boobu nga xam ne dina ko permettre à vingt cinq pour cent mu jàll au premier tour tànn ki nga xam moo ko war a remplacer kon bu yeboo rek ñu effacer Sénégal sénégalais yi dañoo dem ba xam ni arbitre boobee nekkalatu leen fa boppam la fa nekkal ñu jóg taxaw def ko face ki nga yaakaar ni cent cinquante personnes tëwuñu ko comment nga defee ni jur ndax juróomi nit dinañu ko të parce que problème bi problème bi parce que ndigam donc donc comme juróomi nit tëwuñu ko te nag dëgg dëgg dëgg wolof dafa ne ku lekk avance tëdd pomm te ku la may bët fu mu bëgg xool ngay xool amul benn werante ce qui se passe au Sénégal c'est que nous avons un conseil constitutionnel aux ordres. mais pourtant pourtant yéen pourtant yéen a ngi dem élection pourtant pourtant yéen a ngi dem élection. mais foofu yéen a ngi sàkku na mais attendez yéen candidature am yéen a ngi dem euh, élection li la tir wax léegi c'est le même arbitre c'est le conseil constitutionnel. mais non. gis nga euh, bu rëy la loolu. non parce que dañu corrompre loo xamee ni ci réew kenn waru ko corrompre. loolu moo indi aberration léegi lu tax ngeen dem élection mais ñun ay sénégalais lañu te réew mi suñu lañu on ne peut pas être indifférent à notre propre mais non attends yow bu fekkente ni da ngeen di bëri da ngeen di jouer par exemple hmm. ñu ne léegi choisir nañu benn arbitre équipe A wa ngi nii équipe B wa ngi nii ba si yàgg saar benn joueur benn attaquant adverse bi ñëw ba nga xam ne nekk si surface de réparation bi war a reprise bal war comme ni ko Abdoulou di waxee nar a dugal ndax góol nekkatu fa dribblé na ko défenseur bi jóge ci àll ba ramassé ko ba moom mu génn ca biti arbitre bi dans un premier temps sifflé penalty génne carton rouge parce que loolu la ko loolu la ko charge football jox mm-hmm. ba si yàgg sar footballeur boobu ni ko maa lànk du ma génn arbitre bi toog ba mu neex ni ko waaw non non léegi nañ comme nee na du génn nañ ko bàyyi rek mu du mu su fekkente ni bàyyi nañ ko mu joué ñu rebondir bal bi gannaaw bi ñuy demee au centre ñu balancer waat que derrière la derrière derrière derrière la défense même joueur boobu taxaw ci kanam récupérer bal bi dóor mu dugg mais bat boobu suñu ko nangoo mu dugg bu fekkente ni équipe boobu di football nag am na fulla dafa war a génn ci terrain boobu. ana seen fulla téléspectateur may ma tuuti téléspectateur yi. te euh, spectateur yi bu ñu amee fulla dañoo war a génn terrain boobu ñay seetaan comme waa TFM dañu war a fay seen télévision ñay déglu ñay déglu. fay seen rajo mais comme ci réew mii la ñu nekk te góor du kedd alalu boppam mun Ablaye Wade dafa làmb pexeem te li mu bëgg yorogu ko li mu bëgg mooy du jàll conseil constitutionnel de li mu bëgg mooy des ci bopp réew mi dëgg-dëgg dafa bëgg kott mbaam mi du ko wàcc ba nga xamee ni daf koy yóbbu yowmal xiyaam loolu nag moom lañ dul nangu yaa ngi dégg comme moom comme moom plan leer na te plan wam fekk le 26 jotagul fekk le 26 jotagul plan am du aboutir je pense que ni ñun ñoo am mille et une raisons pour utiliser sa propre force comme ni ñu koy defee ci aïkido laa defee da ngay daal di utiliser sa force adversaire pour terrasser ko ñu utiliser campagne am jël ay juróomi mitam ci télévision am di wax ak nit ñi di dugg ci biir réew mi ndax campagne dafa neex de ndax fu la neex manifester gis nga gis nga nañu rey woon Mamadou Diop ca place ba parce que dañoo chargé nit ñi. mais pour campagne am na presse de. non déglu ma am na presse fu ñu ne kenn du fa agsi. loo xam ne ñu ngi ñëw wax nañ leen nañ ko làmbaat parce que ñun dañoo am. loo xam ne foofu ñu jàngal ko Sénégalais yi. dem fu leen neex de. non defal na maa ngi ñëw ci loolu. dafa am lu ñu war a jàngal Sénégalais yi. mooy mm-hmm. wan leen ni pas-pasu jàmm ci réew mi kenn ëpp ñu ko moo tax it bi ñu ñëwee ñun FSDBJ ñu déposé marche bi au nom du M23 ñu war a dem ba ministère de l'intérieur ñu taxaw suñu kanam ni du ngeen dem ñu leen waaw sénégalais yéen ñëpp yéen ñuy seetaan gis ngeen ni de constitution dafa wax ni ci jamono campagne électorale fa Ablaye Wade di génne di dugg ak place mu mën a doon ci réew mi palaasu campagne la moo mënul biir génn ci biir dëkkam këram jaar ci biir avenue république wala dem place indépendance fu nekk mu taxaw fa di yëkkati loxo naa leen mën a mën mën a guddul jeex te ngeneen yi mënuñu yegg foofu li ngeen tax moo leen di wax ni fii ñu toll nii li tax ñu war a réfléchir ndax depuis 2000 moom mii ñu ngi koy may mu ngi fowe loo xamee ni kenn du ko fowe ci réew ndax lépp lu ngeen fi gis tey ji ne woon na jiitu loolu ndax bare na lu nuyoo ci sëy feenoon na sa ndoxaan la dañ ko nanguwul fay la situation que nous vivons aujourd'hui li ñuy dund tey jii nga xamee ne dem na ba mandaawam jeex mu dóoraat mandaawam jeex mu ne àll mikk du bàyyi dara waralu ko lu dul parce que légaliser na ñoo xamee ne rey nañu nit rey responsable yi gën mag ci réew mi ñu bàyyi leen wëlbatiku ñaata réforme constitutionnelle lañ fi def te dara taxul lu dul bëgg-bëggu benn waay mm. ñu wëlbatiku mu ñëw jéem ak assemblée nationale échoué wëlbatiku dëgg constitution dëgg conseil constitutionnel. jàll ki ñu ki ñu jiitee kon reykatu nit la. mais je n'ai pas dit ni dafa jël moom. fetal teg ko ci bopp nit tiire mm-hmm. mais je dis ni moom ak gouvernement am ak député libéré nañu libéré nañu ñoo xamee ni de manière évidente rey nañu ab sénégalais fii ci biir réew waa waa ñu wax tuuti ci ci mbiru de mi ngi baat campagne waaye yéen seen seen seen seen seen si si wàllu M23 bi gis nañ ne candidat yi fa ne dafa bëri xam nañ ne booloo mooy doole ba fi mu nekk nii ba jamono jamono yu wees da ngeen booloo woon mais fi mu ne nii daanaka dañ seen seen seen euh, unité bi dafa commencé effrité wu Macky dem na Moustapha Niass mi ngi si tànk yi est-ce que yaakaar nga ne yéen seen unité bi di ko kontu parce que parce que yéen booy xool tam bokk leen li ngeen bëgg de. non xam nga je pense que ni il faut que ñun ñu xam lan moo boole waa M23 ndax ñoom ñëpp candidat lañu bëgg nekk président de la moo leen ci boole. moo leen tàggale. non no moo tax ku nekk dem ak sa. non moo leen moo leen tax ku nekk dem ak sa coalition mm-hmm. effectivement. donc de manière évidente ay concurrent lañu. donc premier postulat bi tax ñu àndandoo mooy dañoo jàpp ni làmb ji pour président de la république ba war a jëriñ Sénégal génn ci il faut que mu doon làmb gu leer bu transparente bu